lu histoire la am bu gudde gudde gudde waaye ulama yi nga xam ne ñoo jógoon nit ñi nekk ci yeneen ñoom ñu jóg ci gën a fas yéene sàmm sharia kenn ku ci nekk da ngay dem ba hadis yi nga dajale ci la nga xamul la nga dem ba attana wóolu da fas nga ñeme ngaa dajale yàlla ci ne lii yaa ko wax ndax da nga koo ballalu ci hadis yi wér keneen ki ballalu le te yow yaa moom keppay mënuloo ko ne bàyyi li nga jàpp dikk ci li ma jàpp moom it mënuloo ne euh, bàyyi li nga jàpp ñëw ci li jàpp ndax Imam Malik bi nga xamee ne Harun Rashid daf ne ko Muwatta bi nga bind indi ko ñu def ko ay exemplaires yu dul jeex séddale ko ci adduna bi te ñu suul ñu détruire yeneen euh, téere xaddis yëpp téere xam-xam yëpp mu ne leen déedéet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay saxaabaam dañoo teqali ko ci kaw démb suuf bi kenn ku ci nekk dina nga ci moom kon kenn ku ci nekk la la wóor rek mën nga caa jàpp bul bul noo weddi sa moroom ndax la mu dégg ca ña mu ko dégg xay na gisuloo leen wala am na lu tax ñeent ñi nga xam ne nag ñoo ngembu summi ko takku taxaw guddeeg bëccëg ci dajale hadis yi ak ballonlu ko ak seet xatte yi ak fañ koy sukkandiku muy ñeent ñi dana am Abu Hanifa dana am imam Malik dana am imam Shafi dana am imam Ahmad ibn am na ñeneen ñoo xam ne ñu nari pas à s'imposer maanaam euh, jamono sànq na seen i kii ku mel ne que Muhammad ku mel ne que Layth ibn Sa'd ku mel ne que al-Awza'i Sham ila axiri ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye ñeent ñi nga xam ne ñoom la wax ahlu sunnati kenn ci jaar mbooram leer na ne di nga nekk dara mën a koo gën a jub li mu wuute ak kee mu loo ne kenn ci am dëgg maanaam nag xa ngir yooyu na ñu bàyyi ko fi ordre lay indi ndax gannaaw benn kenn koo ci jàpp kenn koo ci jàpp ndax kenn ku ci ne am na saxaab yi boo xam ne moo gën a not ci sa ay xadis koo ci jaar jaar nga ci dëgg bu fekkent nag da ngay def jaar fii jël ci kee jël ci kee jël ci kee day daal di indi désordre boo xam ne damay wax toujours ne am na njuumte lu ñuy def loo xam ne lu ma ta seetaat la bu fekkent ne da nga fab al fiqhu ala al mazahib al arba benn téere boo xam ne fiq bi dafa seet ngir bu ci nekk lam ca wax ñi nga xam ne ñi ngi toll ci war a bëgg xam seen farata rek lu ñu ñun ñoo xam ne dañoo bëgg a géeju wala ñu xam euh, wóote yëpp seen farata lañ bëgg a xam te lu urgent la nga naan leen loolu nangam waaye diw na nangam waaye diw na nangam waaye diw nee na jaxase nga xelam te bu dee koo xam ne dafa xamul l'islam te jàng tubaab dafa naan l'islam daal ay werante rek la moo tax li nga xam ne moo gën di ordre réew mu nekk ngir ma nga xam ne moom la ñu jàpp ñu jàng ko ba xam ko sax ca ñoom borom ngir yi rek amu ci kenn koo xam ne nee na sama ngir mi bu ci kenn génn dem ci beneen kenn nit ku nekk sañ nga nekk ci ngir mi ba mu yàgg nga dem sa ngir mais dara nekku ca li ñuy wattandiku daal moo mooy fawda bi anarchie bi ñi nga xam ne noonu la noonu la ñu téye woon sharia bi fiq bi tawxid bi tawxid bi sax buñ ko seetee kenn ku mel ne imaamu ahmad bun hanbal rek nga xam ne boo nekkee ci ngërëm tawxid baa ngi ci fiq baa ngi ci waaye boo nekkee maliki yi wala shafi yi wala xanafi yi mën nga nekk ashari yi wala nga nekk mu'tazili wala nga nekk leneen waaye limaam ahmad moom ngërëm dafa boole fiq ak tawxid ndax moo mujj ci ñeenti borom ngir yooyu li nga xam ne daal mooy gën a sellal gën a leer ci boppi nit ñi te muy wóor ngërëm yi mi nga xam ne ci la nekk noonu fii ci senegaal ak ba màkkaat bu bari doy na mu ne ngir bu mu doon ci ñett ñeent yooyu doy na waaye bu fekkee ne dina bëgg a falngaate yépp daanu indi fawda indi coow indi doo xam ne ñoom seen bopp musaloon leen ci seen bopp te sàkku nañu itam ku ca mucc ba tax kenn ku ci nekk da ngaa daj du say morom dajul ci coono ci bëgg a sellal bëgg koo wan jaam ñi nga daj bu kenn dajul liggéey liggéey bu rëy bàyyi ko fi ngir nit ñi jub yow ci sa bopp boo bàyyee ngir nii dem ci ngir nii amuloo xam-xam bu tax nga xam ne kii dafa gën a sell kii wala dafa gën a dëgër wala dara mënuloo ko am mënuloo koo am moom kooku moom mënuloo koo am mënuloo koo am ndax الإمام أبو حنيفة